site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko bañ inauguré pont bi ba léegi bii mooy juróom benn yoon boo xam ne nii euh, camion dafay daanu ay oto yu ndaw daañu nañ fii matagul trois semaines am na benn camion bu saaraan dugg si bitiki naar yi te foofu nit ñi dañ fiy taxaw fii aussi gis ngeen sixième fois boobu ba léegi chaque fois ñu ne rond bi dafa yaatu pont bi dafa jege mais également amul kenn ku fi monté di surveiller lii nag nañ si jël dañ si jël ay jumtukaay parce que saa ça peut amener catastrophe tey gis ngeen ñu ngi organiser foire bu mag

mais oto yi ñu leen neex la ñuy dawee boo amul ay frein mais boo ñëwee da ngay saaraan xoolal camion bi kii bu duggoon si kër jàmbur gi musuba la bu duggoon si foire bi musuba la amagul mort d'homme mais am na ay dégâts matériel énorme énorme énorme la fois dernière camion bi dafa dugg si bitigi jàmbur bi yàq fa lu bëri tey fii nit ñi dañ fiy toog bitig la bitig la boo xamee ni waa gi dafa dem añi mais sinon bu ne na fekk ay nit et c'est grave di si kilifa yi jël solution rapide lii c'est trop c'est trop c'est trop ñii gis nga même fi ñu defee foire bi nii indemniser nañ leen fii PAMECAS moo fi nekkoon jox nañ leen seen xaalis mais nañ ñëw aménager ko jël seen entreprise nañ ñëw Ageroute nañ ñëw wala ñu moom nañ ñëw pont bi moo yaatu wax ji yëpp pont bi moo yaatu lool lool lool lool lool ba pare ñoom dañ naan dafa gàtt ba pare amul kenn ku surveiller amul benn gendarme wala policier wala Ageroute buy def ay surveillance di wàññi nit ñi si li ñuy dawalee parce que nit ñi des fois ñu am ay défaillance technique léeg-léeg aussi mu doon waar en tout cas lii doy na waar lool population yàgg nañ koy jooytu ah si ñaari at juróom-benn weer juróom accident ñaari at juróom accident mais xanaa bala ñu am fukki at dëkk bi jeex nañ ñu dimbale balaa si leneen di am lu xam ne nii duñ ko nettali ñu ngi ñaan kilifa yi ñu jël si ay solution rapide vraiment. le maire jël parole annoncé ouverture yi foire bi. benn camion bu rëy bu chargé ciment loupé virage pont bi dafa loupé virage pont bi euh,

seen site d'information Cine TV n'est qu'un ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo et mucc à yi nga d'affaires top. dafay plus lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Cine TV jokkoo